pour être respecté. Ce n'est pas, compliqué. Il n'y a personne de mieux placé que nous pour gagner l'élection présidentielle de 2020. Shine bright like a diamond. ñu ngi lay émission découverte tey ñu ñëw di dalal euh, Baye Dioum nekk kenn ci membre J Black. Euh, li tax nag ñu membre bi yëpp c'est que c'est que dañoo waxtaan ak moom ci domaine yu bëri quoi ñu nga moom ci rab bi moom tamit ci commune de Hann Bel-Air dalal ko beneen yoon incha allah dinañ dalal euh, membre groupe bi yëpp présenté ko euh, ñu soog a soog a côté. yee jaamu jeenam comme gaa ni ko xamee euh, ñu gën ma xam si Baye Mamadou Dioum ñi xam na Dioum ñi Malaw ñi. Immature Brand di Criminal Flow whatever li gars yi wax naan tur bu bëri day wane jëmm quoi day wane jëmm ju mag mais nag aw ma jëmm ju mag quoi jëmm tur laa yor maa ngi nuyu ñëpp képp ci seetaan ci Capa TV seen jox seen wàccuwaay di leen wax ne Baye Mouride Diouf la dëkk Yaraax doon doomu Yaraax euh, di bëggee ñëpp di kilifa gi di wax ne incha allah xam naa kilifa tey moom émission bi dina neex incha allah. <laughs> Baye Diouf maanaam boo ñu doon wax sa carrière doo ko débuté quoi. waaw. Euh, lu neex la quoi parce que su ma yox laan lu neex la mooy en fait xam nga wolof day wax naan euh, doxu xale bu neexee yaa jaar téy sa mbag bi loolu moo tax man lu neex la koi parce que dañ ñëw avant sax ñuy dugg si rab bi ñun suñuy yi dañ doon dañ doon doon c'est-à-dire ay rapport lañu woon quoi nañ fi nag dem jàng ji ñëwaat mais bañ ñëwaatee tamit griff boobu moo ñu bañ ñëwaatee tamit ñëwuñu rek dugg si rab bi mais dañ doon suivre nekkoon ay melomaan gars yi naan melomaan Eh, di dem concert fune ne ay way kin parcel xam cafeteria fune ne quoi euh sinon lañu am eh, ben suñu ben membre bu tudd élage mang koy bigee en page diko wax ne ko salid bro eh, moo mo mo indi idée wu groupe ne dañu wara téwal yara parce que dafa ñëw rek ko Ouska Ouska suñu ben membre pierre bekk bi ñëw ëpp lu ñu and ànd mu ñëw nañu boy ñu chaque jour dañuy dem ci concert yi dañuy dem fepp di téwal yara di xol mais dañ fa gis ñu représenté ku en Bel Air Yaraax quoi te Yaraax suñuy wax hip hop c'est-à-dire mënuñu ko si génne quoi parce que cafétéria bokk na si li taal ñëpp pourquoi pas ñu créer benn groupe boo xam ne dañuy représenté Yaraax dignement ñëwoon nañ nag fekk fi ñu doon rap Yaraax amoon na ay rappeur bëri woon nañ tamit mais dañ naan dafa am lu manqué woon mooy engagement bi xam nga nit lépp loo nekk dañ ci war a engagement ak détermination ak vision bu claire loolu mooy tax au moins nga mën a nga mën a atteindre ce objectif bañ ñu ko waxee en fait ñëw ñu rek nekk ci quoi mais dañ ne non foog ñu xalaat ci li nga wax parce que mu ñëw rek dugg ci quoi lan moo tax ñu war ci dugg en fait ci noonu lañu amee idée xalaat groupe bi nu mu war a mel nan lañ ko war tuddee lan mooy suñu objectif parce que nit ki booy def dara foog nga objectif comme ni ma a am loo atteindre mais première de first mooy suñu premier concept mooy ñu ba tey boo demee Géejawaay ni ñu amee groupe yu mag yi fa nekk boo demee Parcelles boo demee Pikine ñun Yaraax ñu am loolu loolu moo nekkoon euh, début bi loolu moo nekkoon concept bi te loolu moo ñu tax ñu dugg si hip mooy représenté yaraax fi mu naan ba ñëpp xam ne euh, fu feneen amee leneen ak leneen tamit yaraax am na ko waaw mu nekk lu neex nag vraiment parce que dañ nekkoon ay frère bokkoon benn koñ ñu xam nga bokk benn bëgg-bëgg tamit kenn ku nekk peut-être différence su fi ñu dëkkoon xaw na sore tuuti rek mais ñoo bokkoon même même même même endroit bi quoi waaw loolu mooy loolu mooy début carrière bi nga xam ne commencé nañ ko si J Black tudd suñu bi tudd J Black yaraax waaw depuis 2008 2009 lañ créé groupe bi quoi ba léegi ñu ngi évolué ci ay jafe-jafe ci jëm ci parents yi wala wala boobu jafe-jafe yi euh, maanaam a jóg. xam nga xam ko tàmbalee a jafe mooy ko jóg. ci jafe waaw loo gis nag euh, si àdduna bala mu baax foog mu am jafe-jafe mu am jaar-jaar parce que jaar-jaar mooy moo lay mooy tax nga nga xam li nga bëgg. mooy xam nga mooy tax nga xam fi nga nekk ak fan nga jëm commencement bi en fait ay xale la ñu woon c'est normal suñu parents yi c'est normal ñu ñu xool ci lu ñu nekk ndax lu baax la wala lu bon la wala est que lii avenir la est lii day yàq suñu doom te c'est normal ku jur doom su duggee si dara c'est normal nga suivre ko xool ci lu nekk mais dafa am benn contrat bu ñu signé hip hop bi mooy rap bi nekk contrat bi moo nekkoon bañ ciy dugg dañ ne ko dañ ne hip hop bañ ciy dugg ñun. boo ñu tuxloowee loo ñu bàyyi la chaque jour dama koy wax sama discours boo ñu naan loo sàngara ñu bàyyi la boo ñu jàpp boo ñu boo ñu topploo jigéen ñi ñu bàyyi la boo ñu bàyyiloo suñu waajur ñu bàyyi la non duñ ci xalal dañ ci conscientiser ñu bëri parce que xamul tax en général ñu nekkoon si rab ñu ci gën a bëri dañu jàpp ne boo tuxul naanu rek doo mën a am inspiration mën a rab mën a bind wala naanu ñun dañ ci conscientiser ay nit ñu bàyyi ko waaw nga mën a am dañ ci dañ ci ay nit yu bëri maa ngi fàttaliku benn gars ay maa koy béggee dañ def benn concert lendemain bi ñëw comme dimanche bu ñëw ñu toog di waxtaan ñu ne booy booy dem booy tur ngeen ay saaku bon booy fii ina ko lay wax ni booy mu ne non jour concert bi ko toj booy da ngeen waaye yow kenn xamul ni ngeen mel jour boobu ne ko non booy bu lox loolu ñun ñun si ngeen sax duñ ko tur mais dafa waat ci yàlla na ngeen tur xamul tax loolu en fait nit li nga koy li nga bëgg nii soo ko laajee xam nga jëm moo nekk loo xam ne mooy suñu borom mu ngi ci cest à lépp bu nekk ci yow damay wax chaque jour ne teesu nit lépp nit nga nekk si yow yow sa borom yow sa lépp loo laaj si bopp mu jox la ko nit nag bu xamee loolu du wuti eff loo xam ne day def effet secondaire pour mën a pour mën a yee boppam non non si yow lay dépendre pour nga mën a yee sa cest à commencement bi nekk na nekkoon loo xam métti parce que parents yi bàyyiwuñu woon si noonu beneen bi mooy ñu nekk si yaraax xam nga yaraax gars yi fet dama naan public bi yaraax comprendre woon li ñu doon def suñu dëkkandoo yi xamuñu ñu doon def dañu yaakaar ni affaire dof la affaire de xale la xam nga benn pasta la quoi en fait mais ñun ñu xam ne lii tamit am na am na njëriñ ci nekk parce que def nañu nit maanaam def nañu nit mooy tax na daaw ñu xeexate parce que amal rab bi daan nañ nekk ñu bari histoire yi nekkoon ci leneen ak leneen mais rab bi tax na ñu bàyyi xeex bàyyi xuloo kenn duñu gis lu ñak fayda liggey wacc nek rab bi en fait lolu mo mo andi suñu parents yi wolu ñu xamne li ni mënu yàq contraire dafa defal sama sama suñu doom parce que tax nañu gëstu gëna wuti xam-xam parce que rab bon balang ko def da nga wara am xam parce que kuy conscientiser da nga wara conscient bu nak kuy joxe da nga wara fek nga am loolu yëpp rab bi moo ñu ko moo ñu ko jox tax na ñu ñu ñu am gën a am fierté war ne lii ñu nekk nii lu baax la ba noppi gindi si ay nit yu bëri ñoo xam ne ñoo woon si yoon safaan ànd leen am na ñoo xam ne gëmuñu woon seen bopp ñu gëm loo leen seen bopp am na ñoo xam ne xamuñu woon seen bopp sax ñu xam loo leen seen bopp léegi suñu parents nag xam ne ñii li avenir la xaar ñu bàyyi leen ci sérieusement mosuñu am problème ak benn su benn yoon suñu parents yi mosuñu see xere mosuñu see mosuñu see mosuñu see ay vraiment man euh, euh, euh, jour bu amee liberté mooy dama dem concert fekk ne euh, chef quartier yi la ñu invité woon ak délégué de quartier sama papa nekkoon si délégué quartier yi xaw ma woon moo ci tribune bi ñu ñëw ma zéegi zée fa lu neex gars yi tàcc ñibbi lan bañ bañ xëyee suba paa bi ne ma ana lañ leen fay démb seen concert ana lañ leen fay ma ne ko fay dama ñoon concert démb paa de dama ñëwoon feneen de mu ne ma ah gis naa la gis naa la ngay def ma ne ko fan mu ne ma parc expliqué ma quoi mais macha allah góorgóorlu leen rek man nag man jour boobu laa am laa am liberté man lañ ma signé sama <laughs> c'est-à-dire que loolu la quoi mu nit lépp loo nekk rek gëm ko bëgg ko nekk ci def ci fulla ak sa fayda bañ ko la ci yàpp nga góorgóorlu ci lépp lu mën a nekk bu baax yàlla na ci def résultat vraiment loolu loolu mooy loo xam ne am na ay ay ci maanaam jafe mooy en fait daan nañ suivre ak yooyu mooy def nañ ay concert yoo xam ne dañuy dem ba si digg bi ñu xëcc suñuy courant c'est-à-dire jafe-jafe bu nekk nag dal vraiment parce que expérience bi bëriwul woon bëgg-bëgg bi moo ëppoon ñi ñu war a jàppale jàppale wuñ ñu ñu ñu waroon xam xamuñu c'est-à-dire que ñu dañ ñoo marginalisé woon quoi dañ ñu bàyyi noonu si raad rek ñun ñuy ñun daw rek mais daw boobu nag amal nañ njëriñ parce que am na ci expérience boo xam ne léegi lépp luñ bëgg a def sérieusement duñ dem si ma sàmba wala ma dem lépp dañ koy jéem a rek gérer suñu bopp ba niñ toll nii mu nekk ay mbir yoo xam ne vraiment métti na nag que ku rab bañ ku rab bañ jàppale yóbbu si ay taxal loo xam ne ñu taxaloon jàpp ñu yóbbu ñu police te suñu parents ba ni may wax ak yow nii buñ ko déggul si interview yi wala si xamuñu parce que duñ leen ko wax buñ ñu yàqal ñu suñu carrière parce que dañ jàpp ñun li ñuy def nii naka suñu noonu mais heureusement yàlla dimbal nañu ba loolu faj nañ ko ba dëgg bi feeñ ba ki nga xam ne taxaloon nañu moom moo mujj rëcc ñëw diñ baalu àq parce que dafa jàppoon ne naka suñu noonu mais lépp loo nekk rek nañ si jëlee suñu borom mu ëpp voilà. léegi nag yéen di ngeen defal loolu yàlla loolu ngeen def ci biir seen seen seen seen premier album album daal la ci ci ngeen defee xam-xam te ngeen ngeen seen premier album waaw euh, frère yaa ngi wax lu lu ma lu ma neex lu ma marqué xam nga yaraax ñi fi dëkk ñëpp xam nañ ne dañ ne woon yaraax stage bi génn fii kaset bi fi génn fii fii c'est-à-dire que dañ jàppoon ne fii daal stade wala lu luy siiw daal du fi génn parce que ñun ñooy premier groupe bu fi njëkk génn cassette si rap si commune Hann Bel-Air dañ ñun ñooy J Black mooy premier groupe bu fi njëkk génn album te bañ koy préparé suñu grand yi nga xam ne mosuñu woon génn sax album dañ jàppoon ne loolu mënul nekk quoi ay rêve la woon quoi ñun ñu ne leen mën na nekk te dañ koy def parce que nit ki bu nekkee yàlla dafa def nga nga nga comprendre foog ñi comprendre nga wax nga expliquer leen xam nga tax mu wax loolu mooy ñun duñ tëju woon buntu boobu tey ñu bëri duñ dañuy jàpp loolu mënul nekk xam nga buntu boo tëj rek dañuy xam ne ah kon fii jaarukaay la buntu boobu dañ ko teel mën na nekk maa ngi fàttaliku ba ñu war a defee conférence de presse benn point de presse chaque fois di annoncé dañoo war génn ci album am na question yoo xam ne si si si mbooloo mi la parce que fekkoon dellu gars yi gëmuñu woon loolu quoi Djiby Lal dañu war a génn album événement suñu grand yi nga xam ne mosuñu génn àdduna sax dañoo ñëw taxaw toog di déglu ñun lu ñuy wax jour boobu am na ay questions yu ñëw vers bi da nga xam ne dañu ne dañu bëgg weddi quoi ngeen ko yéen li xam ne kii daf la bëgg weddi mais jour am nañ date bi mais joxe sax mais daf ñu aawloo woon parce que dañ ne ñun li ñu gën yi te dañ koy def dañ leen ko wax benn yoon après mu jeex mais Zoro dañu wax date bi sax te waruñu woon wax date bi dañu woon dañu ne conférence presse dañu ne woon dañuy préparé album album bi ni ngay tudd tiir temps de tiir la woon date bi parce que dañu woon nañ denc date bi date bi ba su jotee ñu communiqué dañu ak ak boo xam ne euh, marqué na yaraax que xam nga tamit loo xam ne première la si gox c'est normalement gaa naat si gox bi woon dañ koy génne yaraax mus kenn mosu génn album rap ñu génn ko deuxième mooy ñu jël ko génn ko jël meilleur mixtape 2016 2017 si année boobu ñun ñoo jëloon album meilleur mixtape 2016 2017 si awadi amoon xam nga mu nekk ay ndam boo xam ne yow génn nga ko muy première deuxième mooy nga Sénégal moom nga nekk meilleur mixtape année boobu nekk ndam loo xam ne en daf ñu daf ñu daf ñu forger ne na nekk li ngeen doon wax mën na nekk yemul si mën na nekk mais def ngeen ko yemul si def ngeen ko mais yéen a nekk ndagar première Sénégal mu nekk fierté boo xam ne vraiment moo taal lépp nag mu nekk teg jéego lu doon vraiment ñu teg jéego. waaw bëri woon na bëri woon na ay groupe de rappeurs mais malheureusement en fait euh, ñu bëri dañu bàyyi. parce que euh, li tax ñuy bàyyi ñenn ñi sama si si si expérience bi ñu am mooy en fait suñu aar bi ni mu war a dundalee suñu artiste ni mu war a dundalee culture ni mu war a dundalee om bi dafa des beneen bi mooy nit ki boo nekkee si dara foog nga am vision comme li ma wax sànq vision bu claire mooy tax nga mën a créer lan mooy tax nga mën a avancer xam nga affaire bi lépp soo xoolee scène la quoi. parce que J Black imagine bu fa nekkee depuis dix ans wala douze ans bu nekkoon dafa nekkoon groupe rap boo xam ne amul investissement bu mu def deful dara dafa ñëwoon rap rek u toog rap rek pour toog en fait li mu yoroon rek mu lekk kon ba léegi dee na ko ñëpp ko mais dañoo xalaat ne ñun dañoo war a investir parce que suñu album bi njëkk ba si lañ ne suñu album bi li si amoon. dañ koy investir si si studio ba suñuy defaraat suñuy album ñun ñooy produire suñu bopp xam ah bee pro la woon ñun ak benn label la woon mais beneen deuxième bi ñun ñoo ko produire suñu bopp troisième bi ñun ñoo ko tur kiiwaat suñu bopp loolu nag mooy survie xam ne au moins mun mun la dundal quoi dundalul yow personne mu sa aar bi ngay def mooy soo bëggee def dara waaw ah, da ah. eh, ko ci defaat sirab bi mais loolu sañ affaire bi loolu la fii kenn jàppalewul kenn de su ma kenn jàppalu kenn mooy kenn ku nekk sa bopp rek doy na la. d'accord est-ce que ci côté bi nga ngi ci cest loolu mooy moom fi nga ñëw nii sax quoi en fait bërëb bii ñu nekk nii yëpp soo xoolee ji black mooy labelam bi ak euh, mais nag dañu amaale benn association bu tudd Annie Hip Hop dañuy jàppale tey. culture urbaine bi nekk Yaraax yëpp benn association lañ créé bu tudd Hann Hip Hop parce que si yow lay dépendre chaque jour dama koy wax léegi moom laa doon waxaat sànq dama koy wax lu bëri mais dama ko ma ko waxaat mooy nit lépp loo laaj sa bopp mu jox la ko moo tax lépp loo commencé foog sa bopp nga gëm ko ba noppi nit ñi mën ko gëm mais la loolu da ngay gëm sa la gëm ñun nag sérieusement loolu moo ñu dimbali ci ba suñu liggéey xaaruñ ci woon kenn maa ngi fàttaliku benn jour Euh, monsieur le maire Babacar Mbengue maa ngi koy ziare. waaw ñëw na benn jour ànd ak préfet. ñëw visiter def xool euh, studio beeg yooyu daan ne préfet ñii ngi gis nii ay jàmbaar lañ lii ngi gis yëpp ñu ñoo ko defal seen bopp kenn jàppale wu leen ci ñoom ñoo ko defal seen bopp xam nga loolu li muy wane rek mooy xaaruñu ko si xaaru ci Massamba xaaruñu ci sama papa xaaru ci Magu Ouska wala wala Rakk Roon ñun ñoo jug volonté wu pour def ko. voilà loolu sax ma laaj la waaw en fait su ñuy wax autorité yi mu autorité dañu bëri ay façon ñii si politique lañ nekk ñii si sport lañ nekk ñii si éducation nekk whatever mais sérieusement en fait damay wax chaque jour ne culture Hann Bel-Air mairie Hann bel ci war a taxawee dafa des des des gëdd bi nga xam ne moom la mais Hann bel war a am si culture yaraax dafa des dafa des parce que lu tax may may may may ma koy ma koy répété lu ma dund loolu lu ñu xam la donte ñu ngi góorgóorlu mais dafa des tellement te culture moo nekk vitrine boo xam ne pour nga jaay sa commune wala nga jaay sa gox wala nga jaay sa dëkk si la gën a gaaw te li ñuy li ñuy li ñuy liggéey si si si si si population bi ak événement yi def ak programme yi def ñu xam nañ ne am na impact bu mag bu mu def imaginez commune Hann bel amul benn infrastructure boo xam ne pour culture la maanaam commune Hann Bel-Air defar ko mairie Hann def ko pour culture amul parce que fii ñu nekk nit ñi nañu yaakaar ne mairie Hann def la défendre fii fii ñu nekk nii ginnaaw yàlla ak directeur bi moo tax ñu ñëw fi parce que en nit ki lu mu def su nekkee benn la nekkul def nga loolu Mara Diop ginnaaw yàlla moo tax ñu nekk fi sérieusement autorités yi daf ja su ma nee su ma nee jàppale ñu jàmm si rek nga mën a mais cest à dañu mel ni sax fulla ñu la war a ñu war a jox si ñu suñu culture dafa des parce que xam est xam nañ ko est-ce que xam nañ valeur culture xam nga homme de culture soo ko bëggee am soo ko bëggee am en fait foog lim nekk lim nekk yow nga xam ko ñun li gën a solo mooy yëg nga xam ne ñii li def nii soo amul nag soo amul lépp sax au moins defal effort bu rëy bu bu tax ñoom ñoo xam ne yaa ngi seen ginnaaw wala au moins yaa ngi si jàpp parce que culture kenn waru ko caaxaane

voie de c'est-à-dire nekk ci safaan saaf may wax ne safaan mu ñëw orienté leen si si si ci njub parce que bu ñu ko bu ko gisee bu ñu ko gisee rek si tëgg fecc parce que homme de culture bi wax ak yow en fait da ngay comprendre kii li muy wax société bi mooy waxal lay wax société bi boo mooy wax da ngay kenn kuy wax benn jum mooy wax mais day mel ni yarax ñooy wax moo tax ñu naan la voix des sans voix c'est-à-dire que loolu la quoi benn nit buy waxal millions de personnes kon kooku noonu war na ko bàyyi xel parce que moom mooy dund si biir askan bi mooy xam seen métti seen jafe-jafe mais sérieusement euh, euh, euh, commune en Bel ni ñu war a jàppee si culture dafa des dafa des lu bëree bëree bëri dama koy waxaat di ko wax dafa des lu bëri te war nañ ci góorgóorlu lu tax ba léegi suñu culture bi mënul avancer mooy ñàkk si jàpp mais xoolal Pikine géeju Guédiawaye te Yaraax am na cent vingt ans mais Yaraax ba léegi dafa dafa day mel day reculer gars yi dañuy muy reculer mais imagine loolu. voilà voilà voilà voilà loolu quoi sérieusement dañu soxla nañu jàppale bu baax a baax. su may wax nag damay généraliser. parce que fait ñun dañoo romb si waxal jibla parce que lu tax ñu romb si waxal a kas mooy ñun ñun góorgóorlu si lu ñu am as néew suñ gars yi jàppale dañ koy def suñ jàppalewul dañ koy def mais dafa am ñoo xam ne ñoo war a ñëw génération bi war a ñëw léegi ñooñu nan lañ war a pare nan leen nan lañ a c'est très important parce que nekkul ne génération bi nga nekk wala li nga nekk nga war a jënd mais génération bi war a ñëw ñun ñi nekk suñu ginnaaw dafa bëri frère dafa bëri tellement ba en te am yaakaar nag su ñun ñun ñu am yaakaar su ñoom parce que ay temps la ñoo xam ne su ñun la ñuy gis pour mën a avancer léegi ñun tamit fokk ñu am ak njàppale boo xam ne ñoom dinañ dina mën a ñëw si ñoom quoi. waaw génne nañu trois trois projets. parce que ñaar yëpp euh, ay mixtape la parce que loolu c'est langage hip hop benn bi mixtape la benn bi mostable la benn bi album la mais yëpp ay ay ay ay ay ay série de kii la quoi en fait album la benn bi ñu ngi ko njëkk a génnee deux mille euh, deux mille seize suñu premier album ñu ngi génne deux mille seize voilà deuxième album bi ñu ngi génne deux mille dix neuf suñu album bi ñu mujjee génne ñoo ngi génne génne deux mille vingt trois mu nekk performance day mu ngi tudd Teg Jéego bi ci topp mu ngi tudd Clash Nevada bi ñu mujjee génne mu ngi tudd performance bu nekk album boo xam ne c'est vraiment. bu am qualité. yéen maanaam rab xeer bi dëgër bi. bi gars yi naan rab dëgër bi en fait xam nga. xam nga ñun na yàlla daf ñu dimbali ci ci euh, gars yi ñuy déglu xam nañu quoi daf ñu dimbali ci ñu bëri ñu tax ñu tëj seen bopp si loolu mooy. leer lañ man wala ñii lii rek lañ man xam nga yàlla bu la dimbalee nga man peut ñaar yëpp. da koy def. parce que dafa am public boo xam ne. lii lay laaj am public boo xam ne lee lay laaj. biñ naan rab boobu nag ñun defuñu rab mbalax naa rab def mbalax mooy rab bi nga xam ne am mbalax wala mbalax moo defuñu ko ñun hip hop rap la ñuy def si mu nekk si norme hip hop parce que ñun dañuy dugg si hip hop dañ ko dem gëstu ji dañ ko dem jàng ji mais rap mhm. est que mënu am tamit banyak, mbalax maanaam man ko créé mën ko dañuy ay instruments yoo xam ne en fait c'est c'est typique africain ñu utiliser ko waaw mais loolu xam nga loolu dafa dafa dafa teel dafa dafa dafa jara dafa jara expliquer yaa ngi gis affaire bi nekkul mélodie yi nekkul euh, instruments yi xanaa xamu euh, tabala wala mbëng-mbëng wala cóol mën nañ ko tëggee bitu rap mais xam nga li soxla mooy nga nekk si norme su ñu naan mooy en xam nga bit soo xoolee quatre temps la mais su nekkee si quatre temps tamit am na yoo xam ne dafa si mélodie yoo xam ne moom lañ soxla si biir quatre temps yi pour mu nekk rap xam nga su ñu naan hip mooy culture bi ñu nekk parce que culture bi nekk mooy hip hop hip hop si la break dance nekk si la euh, DJ nekk si la graffiti nekk si la rap nekk rap nag moo nekk bi gën a parce que moom la ñuy def moom moo gën a bëri wax moo rap mais mélodie yooyu. cest à que nekkul ne moom moo mooy mooy moom la wax parce que mélodie yëpp mën nga ko utiliser si musique bu nekk parce que mbalax euh, euh, euh, instruments yi ñuy wax ni mën nga ko utiliser si salsa mën nga ko utiliser si si si mbalax mën nga ko utiliser si rap mën nga ko utiliser si si dancehall whatever mais dancehall dancehall la mbalax mbalax la rap rap la xam nga yaa ngi ko ràññeel quoi dañ ko ràññeel lii bu tëggee da nga xam ne lii mbalax la mm-hmm. lii bu tëggee da nga xam ne rap la lii di nga xam ne mais loolu la ñu wax maanaam si rap la ñuy rap instrument yi mun mun sadik amul amul amul problème mais suñu naan rap ñun dañu dañu dañu dañu dañu dañuy rester ci ci authentique bi suñu authentique moy mooy ñu si pop bi nga xam wala moom lañ nekk rap bi ñu nekk. Ah, ñu zéro ben euh, instrument bu tey tam ngay tegu ci rap bi ci rap bi lay nekk sadik ci rap bi lay nekkaat ba léegi hmm. parce que lolu dafa lu tax ñu bër ñi koy amal gam ñu bëri rap mbalax rap nangam non non non rap rap la mbalax mbalax la Raga raga ragal raga la léegi nag yaa yow ban nga ban nga ci def ñun rap la def waaw foofu moom xam moom mën nañu def ci parce que yaa ngi ko lu may doon waaye rek ni studio bi ndax dañ ciy produire yeneen jaay quoi yoo xam ne ñëpp di waaw waaw en fait dañ produit ñu parce que label de production la ñu Entertainment ànd si ànd hip hop parce que soo xoolee association bi ma la waxoon sànq muy Anipop fii la basé tamit ci centre bi la basé mais tamit fii mooy chef ci da ci produit ay ay ay ay ay ay yu bëri waa ci booy yaraax yi parce que tamit comme li ma la sànq li naan bay sa wew tànk balaa amal kenn njëriñ amal sa gox njëriñ mooy euh, li ñu doon wax cela tamit est ce que du est ce du est ce ba léegi sax yaraax amul benn studio bu fi nekk muy muy muy biñ ñaar nii soo xoolee gars yi dañ génn dem Grand Dakar wala ñu génn dem Big Town xam nga fa lañ daan enregistré seen son yi quoi mais léegi soo xoolee fexe nañ ba képp kuy enregistré fii ngay ñëw te tamit deuxième mooy dañ ciy def xéwal ba doo ko yëg sax am na ñoom sax dañ leen defal grâce am na ñoom dañ leen def boo xam ne dañu koy defal lépp loolu nag mooy social bi quoi parce que nit centre socio culturel lañ nekk boo nee centre socio culturel social dafa war a feeñaale culture dafa nekk waaye social dafa war na ñoom dañu ñëw bëgg son mais amuñu lu ñu lu ñu fay mais lan nga war a def yow mooy dañ si war a jàpp defal leen son gratuite loolu mooy mooy parce que suba mooy sooy moom nga def koo defal gratuite suba mën na ko jaay suba mën na ko yëkkati feneen ba keneen mën ko def production ñëw fay la sa xaalis loolu tamit mooy centre socioculture bi ñu nekk li nga xam dañ a jàpp si ñu ñu mën si gis seen bopp dañ ko fiy def parce moo nekk suñu rôle centre bi mooy faciliter am soxla ñun tamit nan lañ si jàppee ñu tamit loolu mooy mooy social bi loolu lay laajaale fii quoi te dañ koy def partie bi moom mën ko dégg. waaw dañu ñëw ci commune jour dañ koy wax si suñu son yi mooy. am nañ lépp ba noppi ñàkk lépp. waaw. commune hann moo nekk gox boo xam ne tey moo woon gën a neex si gën a neex si commune parce que li ñëpp ñàkk ñun dañ ko am. du mën a wax mais benn am na ci wala ñaar damay jël ñaar wala benn benn bi mooy. xam nga leader suñuy wax leader wala ñuy wax acteur en fait mooy ki nga xam ne day jub pour yee askanam pour jub pour wat c'est-à-dire que ñu nekk seen ginnaaw mu avancer affaire yi mais malheureusement suñu acteurs yi wala suñu euh, euh, euh, leaders yi ñu si gën a bëri seen bopp lañ fi nekkal mais nekkul luñ ci population te popula beneen bi mooy population yi dañ nekk ñu yaru ñoo xam ne duñ wax. c'est-à-dire ñu gis nga géej yaraax ni mel population yaraax noonu la mel yëngatum nawet rek la population yaraax nag bu xasee ba yëngatu mooy dafa am lu ko met loolu mu léegi nag ñu bëri la ñuy profité ba li ñu war a doxalee yaraax mu des su ma expliqué loolu mooy xam nga nekkal sa bopp ak nax sa bopp baaxul parce que mën nga sóob wax ne maa nekk naa jàppale nangam naa jàppale nangam en fait mën nga nax nit ñi benn yoon mais doo leen naxaat ñaari zone industrie la nekk mais soo xoolee soixante pour cent wala quatre vingt pour cent yi zone si si société yi nekk Dakar commune Anbert lañ nekk xoolal booy yi ni ñuy ni ñuy ni waaw foofu te maa xam nga usine ñoo fekk nit ñi jaare jàpp na usine ñoo fekk usine usine ñoo fekk nit ñi beneen bi moom laay ñëwaat mooy tey amul ku dëkkoon ku war a dëkk commune Anbert di chômer warul bëri ko parce que am na loo xam ne droit la ci société bu nekk ñu RSE bi mais société bu impliqué si fu mu mën a nekk si gox bu mën a nekk employé yi ñu war a jël c'est normal dëkk bi doomu dëkk bi ñu war leen jël mais dugal yaraax nga laaj kan moo fiy liggéey si société soo jëlee dix personnes na day lay nekk wala benn mais ima loolu est-ce que xel nangu na loolu quoi ah. xam nga ko waral mooy ñàkk volonté politique bi nga xam ne moo fi nekk si autorité yi am na yoo xam ne nekkul lay nit ki loo bugg population andi seeg yow da koy daan mais du lay si ay man aw ma doole bi man nangam sa cest à loolu la layee quoi man ma doole bi man sama lii fii la yem population amul compétence fii la yem c'est-à-dire que compétence si population amul fi man loolu gëm loolu xeeru xeeru euh, toolu euh, xeeru xeeru xeer yi rek wan nañ ko population lu mu volonté def ko da koy da koy da koy gagné parce que moom mooy priorité amuñu volonté politique dama koy wax sa jour suñu autorités yi gën a bëri amuñu volonté politique pour commune Hann Bel-Air soqaliku nit ñi fi nekk yeewu li ñu ñëpp war a am ñu am ko c'est-à-dire loolu rek la am na nit gox lu koy defar du ay ay société nit di koy defar nit bu amul nit ñu baax c'est-à-dire que mënoo mënoo avancer commune Hann Bel-Air loolu la manqué mooy ay xam ne li ñu def ni dëgg la fi ñoom moo tax ñu def ak population bi pour avancement looloo fi bëriwul du ma ne amu fi demee dafa bu nekk xëy na xëy na maanaam demee cent mille yow waaw man nag man nag si si si ñooñu bokk mais damay wax ne chaque jour ne gox boo si nekkee da nga war a bokk si da nga war a góorgóorlu bokk si ñu koy taaral war a bokk si ñi koy avancé loo mais waroo bokk si ñu koy tardel waroo bokk si ñi koy yàq yaraax nag seen problème loolu da ci bokkaale mooy politique dafa xaw a yàq suñu yaraax parce que yow bokk parti ma sàmba man ma dëkk ma nekk parti ma demba ñu am intérêt boo xam ne mu ngi ci digg bi parti ma sàmba ne non man maa koy gérer parti ma demba ne non man maa koy gérer après mu mujj yàqu si parti ma sàmba yàqu si parti ma demba léegi mooy yàqu la si yarax yarax bu taxawee ñëpp war a bàyyi si parti ma sàmba wala parti ma demba ngir yarax citoyen citoyen yarax li ma koy wax li ma koy waxee c'est-à-dire que loolu moo war a am si yarax mais malheureusement xeexante bi dafa bëri dafa metti intérêt boo xam ne intérêt waa Yaraax la mais day gis ñaar nit seq googu xeexante bay loolu loolu nekkee bu nekkee ñun ñun population bi consciente wu si wuñ amuñu amuñu conscientisation bi si loolu wala comprendre ñu loolu chaque jour dañuy bëri daal suñu kaw rek chaque may may may damay damay lancer benn message si jeune Yaraax yi te li may wax nii bëgguma ko képp koy déglu bul ko déglu rek après nga mu nekk yow benn benn c'est-à-dire que nga nga xalaatee ko tey non non xam nga bëgg ku ko déglu la ko jël yóbbu ko këram tey émission bi képp koy seetaan lii ma bëgg a wax la ko jël yóbbu ko këram tëdd si néegam xalaat ci bëgguma nga déglu ko nii rek ci léegi mooy message bi may bi may joyee lancé mooy ñun suñu avancement commune Hann Bel-Air xam luñ mën ko mën lan moo ñu ko mën a may moo ñu gëmante gëmante mooy andi bëggante bëggante mooy an njëriñante mu ñett yi nañu gëmante suñ gëmantee dinañ bëggante buñ bëggantee dinañ jëriñante jëriñante boobu mooy njëriñu commune Hann Bel-Aram mooy foog ñu gëm waa yaraax waaye gëm yaraax gëm waa yaraax mu jaral leen lu ne yoof lu tax ba léegi kenn mënu ko yeb si dara mais loolu lañ am mais yaraax dëkk traditionnel yooyu la comme gens yooyu la rek mais lan moo tax ñun chaque jour feneen ak feneen dañu gën a romb si anam yëpp yaraax di mën a dellu ginnaaw yaraax di dellu ginnaaw ñii de avancé ñun ñu dellu ginnaaw xam nga lool war loolu wu ñu wuñu Capa TV bi dafay nekk nekk benn télé boo xam ne mu ngi góorgóorlu mais damay préféré jëli benn gain boo xam ne géej waay la nekk su nekk dama koy fay moom laay fay mais loolu est ce que avancement Kapa TV la te Kapa TV bu avancé Yaraax day avancé parce que ki fi nekk wala ñi fi nekk ñu gëmante waaw léegi nag loolu bu amul non duñu mën avancé frère dañu waxam dëgg c'est-à-dire yi benn la muy am ay leader yu baax yu volonté wu mais population bi dem ñu yee leen on conscientiser leen ne ñun pour ñu avancé foog ñu ya euh, euh, Birame Yaya Wane la tudd waa ji promoteur fekk am nañ ci ay information yu bëri ne yàgg na def loolu fu ne euh, te beneen bi mooy daf fi àndoon ak gouvernement bi fi ànd nekkoon pour nekkoon wax ji xam nga par rapport nga wax nga jaay rafet politique la ku ñu xam-xam ne nekkoon ci politique nekkoon ci par parloo ba sàmm ma dem mais dëgg bu jotee ko koy wax parce que gëm quoi ñun suñu dëgg lañ gëm bi nag yombul woon parce que gain bi am na doole ànd na police am na police amoon na gouvernement bi mais sànq li ma la waxoon mooy volonté population kenn mënu ko téye ñun am nañ ci menace woo nañ ñu fu ne cest à lu ne wax nañ ñu ko bàyyi leen lii lii nangam mais xam nga lu ñu gëmoon dañ gaa gëmoon ne fii buñ ko buñ ko ñàkkoon yarax di te xoolal li gën a bizarre bu bokkul si commune ak Bel-Air mais ñun ñoo koy dund xam nga acte trois bi moo yàq bi moom moo ko dugal Dalifort te waa Dalifort seen yoon ñëw ci woon parce que soo xoolee action bi fi mu jiw yëpp mais Dalifort la ñoom ñoo ko joxe mais ñëw nga ko xeex ji waa Yaraax xamul tax foofu amul euh, euh, souvenir la boo xam ne Yaraax mënu ko ñàkkoon te benn seul place la boo xam ne Yaraax dali foor ak fëkk ñëpp fa lañ doon sangoo am na benn jour ma dem fa li ma fa daanaka wala huit cent personnes man dama toog dama fier dama ne caravane waaw biñ sotti bee bi am dañ ko yàq heureusement fexe nañ des jéego ba lu doon ab benn ndaraan bu ñëw maasale affaire bi defaraat ko ñu taxal fa ay garab wan ne tamit buñ buñ ko bàyyi vidéo noonu nañ fexe def ci action yoo xam ne au moins ku fi ñëw dina xam ne fexe nañ ko ba jël ko mais def nañ action fexe nañ ba bale ko defar affaire bu nice boo xam ne heureusement léegi population bi jëriñoo nañ ko te ñoo ngi si yeneen combat tamit ci si ni mel ni toolu paa bi ci si mel ni route nationale numéro un bi voilà route nationale bi non ba nga wax ni yaram moom ñëw bi ak métti métti waaw bala nga ko xam ne yow dem vraiment parce que xam nga déedéet. dafa métti dem sant li may wax 1960 ba léegi tour national numéro 1 bi ni mu mel nii ay ay tabax lambax lañ ciy defar mais ni mu meloon la mel ba léegi imagine Senghor jaar na fi Abdou Diouf jaar na fi Abdoulaye Wade jaar na fi Macky Sall jaar na fi ba si benn maanaam ba si gouvernement bi doo ko topp. imagine quatre gouvernement gouvernement jaar na fi. sànq li ma la wax volonté politique bi nga xam ne suñu suñu autorité yi ñëw la war a am moo amut mais fii buñ yuuxoo mu ñu defar ko maa xam ne ne fii ñaata li muy jaar si ay ay ay ay camion journée xam ne mën na six cent et quelques personnes kii mais imaginez six cent fii bu nga fa toon tey benn une heure de temps wala deux heures de ay milliards yàqu mais lan moo lan moo tax lan moo tax kon léegi ñu si bëgg a sàggane loolu ñun ñun ñoo si gën a gaañ ñun population bi parce que bu nekk camion yi heure bu leen neex mën na fa àgg mais nga dugg yaraax ñu ne la yaraax nga jëm yaraax nga jëm wala yaraax nga jëm loolu doo bëgg man sérieusement su ma war a génn man damay am problème parce que damay damay damay damay stressé quoi parce que damay xam ne xaalis bu bëri moo mën a fekk tax li nga dina jël yow leer na nañ yow à part de 3000 wala 4000 nga liggéey waat wala 5000 mais loolu métti bi ñan la suñu suñu léegi nag moo tax ñu bëgg a yee population bi wax leen ne leen incha allah bëgg nañ def benn marche boo xam ne dañ ci ànd ak benn association bi tudd sàmm suñu moomeel ak bépp association bu nekk commune Hann Bel-Air def benn marche bu rëy boo xam ne dañ commencé service de mine imagine service de mine mais dañ ko war a génne foofu service de mine xañu ko foofu mais léegi lépp ñu la li nga wax sànq moom la yaraaw seen population dafa dafa jaru No, Fred, Fred, Fred, lii lii lii lii xew lii xew Yaraax bu waxuma waxuma waxuma waxuma waxuma waxuma non kenn wax lépp quoi li ma bëgg expliquer rek mooy am loo xam ne waxuma toog waxum ya su wax ban ban mot laa bëgg utiliser mais sérieusement dëkk lañ boo xam ne léegi nag il faut ñu comprendre ne foog ñu am ay nit ñu mel ni comme suma genre yi yoo xam ne ñu ngi góorgóorlu ci communication di expliquer gars yi li xew ak métti bi jafe-jafe bi di leen di promouvoir pour ñu leen di waxal Yaraax foog mu am ay waxkat Yaraax bëriwul waxkat Yaraax ñëpp a noppi léegi nag loolu population bu noppi noppi day neex a noppi parce que politicien bëggul wax gouvernement bëggul coow yaa ngi dégg ba politicien bu coow léegi bu gisee na coow nga jàpp moom bu premier bi mooy day fexe xaw na mu la éliminer wala nu ak wala nu mu ànd yow mais dañ koy def dañ koy def moo andi xeer yi moo andi tool paal moo andi kii bi ñu war a def nii duñ noppi de bu nekkee yàlla ñu may suñu bopp ñi ñu àndal ñëpp duñ ma sama dinañ wax incha allah kon boo demee fii si kanam tuuti waa magasin soo génnee rek kàppaa léegi nii Sané bu nekkee ñoom fi ba équipe dañuy ranger dañuy ba si société bi fi ñu fa fa la dugg si kaw tëli bi maanaam bu nekkul dañuy wàcc tëli mais si kaw tëli bi beneen route bi nga xam ne moom la ñuy war a jaar fa la ñuy baare imagine la a loo xam ne nit ko mën a saafara population ñoo ko mën a saafara leen rek moo tax moo koy mën a saafara mooy ñu jub wax yuuxu ñu war a dégg dégg leen pour mën a faj seen saafara mais bu nekkee dañ noppi rek ba ilaa yow di diin dañuy nopp te incha allah duñ noppi ñun incha allah duñ nopp parce que ñun ñoo ñun ñoo nekk ay ay artistes nekk nekk porteur de voix lépp loo xam ne askan bi mett na leen wala naqar leen mu nekk ñu war a kaas bu ñu ko kaasul ñun dinañ jug waxal leen incha allah. looy wax ci Béda Am. Béda mi Béda Am. Kanam mi xamante yàlla xam ne tey rek ci fajar. Hmm. dama dem je top jàkkaarloo geji euh ne yalla ma ngi lay ñaan yalla na fekke dee da an fu muy setee wicc ba ba fi ma tok bi mo fi gis ben mbalit ma ngi koy ñaan yalla xam nga dëkk bo ci nekké da nga koy bëgg ba da nga ko war di ñaanal ma xam na sax ñi ñaanal bari wu est-ce bari ni est-ce que dégg ñu naan man ma ngi ñaanal yaraax sa di ko que comme ñun yaa dañ buñ ko bëgg ñun tey si fajar rek la mujj li nga may wax ni tey si fajar laa toog di ñaan yàlla te yàlla nañu yàlla jox ay njiit yu baax yu mën a suñu gox bi parce que fait nit soo bëggee dara nii bala nga ko jug dox da nga koy ñaan yàlla ba nag après nga dox parce que li ñuy def nii di wax nii di kaaxal yara dañ koy ñaanat yàlla dañ koy ñaan yàlla ya même pour kaas dañ koy ñaan yàlla parce que fait nit ki mënoo fi nga dëkk wala fi ngay suturloo mënoo am lu ko ëpp ñun mënuñu am lu ëpp yara jour tax sax yaax suñu deuxième tour mais Birane problème bi dafa dafa dafa dafa dafa profond dafa yaatu. loolu imagine ba léegi lépp taxaw na maanaam tey. Union européenne li mu waroon def ak banque mondiale ak état Sénégal c'est-à-dire que xaay bi dañ naan xaay bi moo ngi tegu mais lan moo teye ba léegi liggéey bi mënul avancer xam nga lu war a lool tamit saa bi li wax naa li wax sànq rek volonté volonté politique moom rek moo mën a avancer loolu lu taxaw béda an bi bañ ko waxee léegi daanaka mën na 35 ans xaw ma 36 ans ñi dem 1988 ñi naan 1989 whatever wala na nekk sax 2000 mais ñun population bi li ñu soxla mooy suñu gox bii muy commune Hann bel suñu géej gii mooy géej Jara ñu defaral ñu ko xam nga li gën a metti mooy nga dëkk njëriñ te mënoo ko jëriñoo baa xam nga ne yaraax géej yaraax dañuy tere ko sangu parce que poulie na poulie boo xam ne c'est-à-dire que sangu fi risque la mën na la andil ay feebar yu dul jeex te wax dëgg yàlla géej yaraax bi su suñu suñu la bokk nga mel ni ko nga dëkk ak sa soxna ñu ne la doo wax dëgg moom imagine loolu. dafa nekkoon bee boo xamante ne nee na deuxième bee mondial moo nekkoon deuxième set. jëli eh, mais au moins ay xale lañ ñu am lu ñu xaw a fekke daan nañ dem napp ji dañ dañuy jël suñu booy dem napp ay jën voilà mais imagine léegi suuf si waxtaan waaw léegi léegi nag yow imagine léegi waxuma sax napp mais doo sangu yow loo xam ne da nga si nga naan napp daan si lekk daan si sangu léegi ñu ne la waxuma sax napp de mais waroo ko waroo si sangu jën yi fi nekk yi nga xam ne jege de sax lekk ko risque la si lan si ñak volonté politique bo xamné ne mën am si pour euh projet bi la am bi avancé xam nga xam nga xam nga xam nga dafa garaaw. dafa garaaw <laughs> léegi nag li may waxaat sa jour mooy projet procédure la mais population mooy de fës xam nga dama koy ñëwaat population bi quoi man xam nga tax ma bëgg wax population population bi population yi dañu wara il est temps ñom ñu jug ñu comprendre né suñu gox bi population moko ma doxal parce que

pour nga dajale nit ñi moom. Mhm. nekk lu yomb. mais xam nga xam nga am na problématique yoo xam ne. Ah. xam nga yaraax dafa am benn benn système boo xam ne moom nga leen di jugloo. waaw ah. yàlla dafa ñu dimbali ci communication yaraax ba. tey lépp lu ñu bëgg a jugloo yaraax dañ leen jugloo. xam nga tax. Ah. tey li nga bokk dañu ciy boole. buñ la boolee si li nga bokk. non da ngay ñëw. léegi ñu bëri loolu tax mënuñu yëg population bi. seen yëf lay bokk. seen yëf nekk seen yëf lay nekk. sànq li ma waxoon am nañ yoo xam am am politique wala am de culture wala yeneen yu bëri seen bopp lañ fi nekkal moo tax bu ñu leen wooyee dañu ah kii sama bopp la ma nekkal. mais li nga bokk su ma la ci boolee su la wooyee da ñëw. xam nga tey mënoo ñëw di xeex benn affaire. yarax képp lay wax terrain bi fa nekk. ci nee naa leen fexe bi ngeen bañ ko yemale yarax da ngeen xam ne xeex bu jóg fii xeex bu ñëpp lay nekk xeer ya dañ ko commencé moo yemoon montagne kase dama def vidéo ne leen leen xeex teer dañ ko bëgg nangu ah. parce que waa ji dafa ñëw andi teer dafa ñëw andi euh, këyit leer ah. suñu naan këyit leer mooy suñu këyit yu leer mooy suñu wax këyit yu leer mooy en fait su ma wax këyit mooy seen làqali làqat ak seen ñëpp saay saay bi leen andi këyit leer seen bopp mais population mooy mooy mooy mooy privé bi yàgg na yàgg xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga li andi wax yépp mooy su ma xiit leer su nekkoon sax bu leer la kamu duñ ko leen duñ leen ko bàyyee xamul tax loolu foofu ay génération génération génération ñoo fa jëriñoo te ay génération a impact impact bi mu war a am problème bi nag loolu mooy problème bi mooy en fait parfois dañuy def ay ay ay impact bi mu war a am bi a loolu mooy loolu moo loolu moo loolu mooy loolu mooy andi affaire bi quoi mais comme damay ñëwaat damay revenir pour par ay ay suñuy def ay manifestation affaire yooyu mooy dañuy fexe xeex bu nekk lu nekk ñi ko ñi ko war a yëg ak ñi si war a taxaw dañ ci yow boo ne dañuy dañuy dañuy def benn marche euh, bi ci rax kan mooy parce que lu tax loolu may génn <laughs> ah ñë eh, ñëpp dëkk ñu la ñëpp toog ñu la ñëppay génn mais communication bi nga war a jaar ngay jaar après bu jub loolu daal bëgg nañ bëgg nañ ko taxaw te comme ni nga ko waxee waxuma ay ASC sax mais association yeeg mbootaay yeeg bàjjenu gox yeeg chef de quartier yeeg imaam yeeg yëpp jàkk yëpp wala jumaa yi au moins ajjuma bu nekk ajjuma bi ñu war a def wala xam ne bi ñu ko war a def ñu wax ko foofu ba ñëpp mën a jug dégg naa ne affaire bi taxaw na xaalis bi taxaw na financement yi taxaw na mais la moo tax démarré wuñ ko ba léegi loo xam ne dañ dañ ne woon deux mille deux mille sept lañ ko après ñu ne waat deux mille deux mille deux mille vingt deux non deux mille i dem nañu ne financement lépp taxaw na a merci Yaraax mooy dañ naan lii financement yi taxaw na mais doo gis mu démarré man damaa xamul lan moo rek lan loolu moo ñu dal <laughs> waaw waaw waaw en fait euh, bi neex na lool te li gën a neex émission bi mooy free la euh, te li mooy tax en fait ñi déglu mën a gën a jëriñu parce que nit buy sotti man na sax wax loo xam ne nekk loolu lim programme woon beneen bi mooy euh, dugg nañ ci trois wala quatre domaines yoo xam ne problème mu yaraax la c'est très important mooy ñun ñu wax si li nga xam ne ñoom lañ maîtriser moom lañ gën a xam wala si lañ nekk muy euh, wax nañ si toolu paa bi waxuñ sax toolu paa bi mais toolu paa bi tamit problème la am boo xam ne toolu paa bi mooy toolu Manansar bi euh, fondation droit à la ville ak euh, GIE yi nga xam ne ñoo fi nekkoon waa GIE yi xam nga toolu paa ba zone la tey yoon wi nga gis ñu def ko nii ñu fa dagg ñëpp fa la leen yóbbu dañ leen daggee yóbbu leen foofu dafa am terrain yi desoon terrain yi desoon dañ ne woon bu desee dañ li ñëwaat ci wax leen ne des na léegi dañ ko war def parce que sol nañ fa état civil imagine wala ñu amoon fa juma wala ñu amoon fa jàkk wala ñu amoon fa maison de la jeunesse wala dispensaire whatever suñu fa mënoon am dafa bëri mais yemuñ ci loolu dafa am espace yoo xam dañu ko daggoon pour loisir football maanaam euh, terrain mini dimension la waroon nekk di euh, terrain basket la waroon nekk terrain football handball whatever mais li des lépp dañ ko mujj jël jaay ko population Yaraax amul lenn ci jëriñu waan mais imagine yow Yaraax amutuñ espace bu ñu espace vert sax amul si si si kii bi si si si si nan ngay mën a defee benn plan boo xam ne au moins pour pour engagement la amul juma amul jàkk amul dispensaire amul joog amul amul sax li gën a tuuti li gën a tuuti mooy espace vert bu mag boo xam ne au moins dañ fa am ñu fi toog sax amul ko yaa yaa yaa yaa yaa yaa loolu te mu ngi si génn ñenn parce que ñëw ko seex état Sénégal boo ko ñëwee fondation droit à la ville la ko jox fondation droit a la ville ba mu ñëwee fi mu mën jaar mooy mairie moom mooy buntu fii Koungheul Mbélé mais mairie ba ñu ñëwee tamit fa am trois yoo xam ne ñoom lañ joxoon liggéey pour ñu def nañ ay lettres faale wuñ te def nañ convocation bañ waxoon ne dañuy wuyu dernier mois la ñu wax ne ñu mutul nekk parce que xam nga la dañoo ragal def nañ deux conférences de presse nag dénoncé ko te dinañ defaat yeneen pour a ko. parce que duñ bàyyi si lenn loo xam ne rek yaraax war na ko yittoo wala yaraax war na ko war na jëriñoo di bàyyi ay jàmbur ay deux trois ba cinq ñu mën te di gën a leen képp muy xeexal yaraax ak ku mu mën a doon parce su may wax man dama damay généraliser képp ko leen gis muy muy taxaw yaraax dooleel leen ko jàppale leen ko parce que yaraax amul ay wax waxkat suñu gisee ay waxkat yoo xam ne ñoom la ñu kaas yaraax lay kaasal di ko taxawal fu nekk dal la jàppale leen ñooñu parce que ñooy seen njëriñ te incha allah euh, li ci kanam rawul bët bépp combat boo xam ne soxal na Yaraax ñu dina si jóg dinañ ci wax dinañ ci def vraiment di la di la bëggee di bëggee Capa TV di ñaan yàlla tamit bu nekk euh, télé bi gën a kawe si Yaraax gën a kawe si Dakar gën a kawe si Sénégal parce que fait gis nañ liggéey bu rafet bi ngeen di def te euh, professionnalisme tamit bi ñu gis tamit doy nañu te ñoo ngi ñaan tamit képp koo xam ne bëgg na liggéey wala bëgg na lu mu bëgg a def woo leen parce que gis nañ professionnalisme parce que suñu audiovisuel la ñuy liggéey. te gis nañu gis euh, professionnalisme bi nga xam professionnalisme bi nga xam moom ngeen liggéeyee leen ñaanal tamit. jàmm xel bu yaatu di ko di ko di ko ñaan yaraax tamit def jàmm Sénégal mais yal na yàlla jàmm yaraax yal na yàlla def xéwal Sénégal mais yal def xéwal yaraax parce que yaraax lañ bëgg moom lañ gëm moom la ñuy di ko di ko ndamoo waaw di bëgg tamit eh, ñi doon seetaan ñëpp di bëgg tamit suñu staff di di bëgg tamit suñu lancé Ouska di bëgg sama ñaari doom nday mu Ouska ak eh, Ron oh, di bëgg képp ku doon seetaan tamit di ngeen wax jërëjëf ok kon bu nekkoon seen émission découverte bi ñu ñëwoon tey dalal Baye Dioum nekk kenn ci membre J Black kon bu defee ñu ngi leen di gërëm di leen sant ba beneen ok merci